masawa is def ci kattanu su ko defee ajaajatu trouvé na ko dañ waxoon ci saydatuna Aïcha waaye boobu fi ñu toll woon ci laxdari bi moo yemoon ak jikkoy saydatuna Aïcha moo taxoon ñu xóot ca bëggoon ñépp roy ko waaw bëggoon ñépp roy ko ci ci personnalité ndax jigéen ju amoon personnalité la jigéen ju amoon dignité la jigéen ju amoon sago la ma waxoon ne sago weesuwul ki gën ci mbindeef yàlla ne moo ma gënal ci li ma bind moom mu am 18 ans fukkeet ak juróom-ñett est-ce que xam ngeen âge fukkeet ak juróom-ñett tey ñun fii ku ko am ci ñun dañ naan kii xale la rek mu am 18 ans yonent bi feebar mu wóor ko ne feebar bi feebaru ndee la dootul jóg ndax yonent bi xam na ne jeex na mission jeex na soxna yëpp woote réunion juróom-ñeenti soxna yëpp toog ñu ne ñun ñii de ay mag lañ te Aïcha mii gone la yëkkati malaat ak tëral nag gone ko mën waaye mag mënu ko kon ñun bu bu ngeen àndee ci li ma wax ku ñuy wax soxnaam bu ñuy wax Maymuna moo dirigé woon wax wa Maymuna moo fi mucc sax ci soxnaam moom bi muy génnaa dina am na quatre-vingt-un ans Sayyidatuna Maymuna moom moo jiite woon wax ja ndax moo ci magoon mu ne leen dama bëgg su ngeen ma nangulee ñun ñépp ñu may suñu ay ay Aïcha muy aye bër bu set ndax nii ñiy jagat jagatee yonent bi booba li muy feebar feebar par bés la doon aye bu jeexalee ci sayyidatuna Aïcha tey samedi dimanche ñu yóbbu ko néegi sayyidatuna Maymuna ñu ne xanaa ñun yërëmuñ ko sax ci jagat jagat bi kon nag ñun ñëpp nañ may suñu ay sayyidatuna Aïcha yonent bi tëddee fa feebaram su jógee continué ayam su jógul ñu xam ne loolu la yàlla dogal soxna yëpp ànd nañ d'accord ni yonent bi ne yéen a ko ko may nga xam na jigéen yéen a ko ko may ñu ne waaw mu ne alhamdulillah kon Aïcha jàpp ma ma dem tëddee feebar bi sa néeg sayyidatuna Aïcha nee na liñ ma koy may may maa ngi ñi tey maa ay suba may Maymuna gannaaw suba Hafsa gannaaw suba diw gannaaw suba diw mu ne ba keroog bi yonent bi di génn àddina mu ne dafa maandu ba ci sama moome man Aïcha la génn àddina xam nga bu génnoon àddina fekk Maymuna moome sax ñu mën a wax waaye sayyidatuna Aïcha ne maa ngi wàññi maa ngi koy compter ba bés altine bi muy génn àddina altine boobu man Aïcha maa moome ma ne nag la ma ci jublu mooy nañ préparer suñ doom yuy jigéen yi gis nga jigéen moo yor kër jigéen moo yor nation jigéen moo yor àdduna gis nga kër gi lu mu neex neex neex bu jigéen gi tëjee kanamam rek kër gi naqari lu góor bari bari bari dépense su ko jigéen ji yàqee rek boo ëllëgee mu jàmbat jigéen a ko ko mën a yaxanalal jigéen moo ko ko mën a économiser jigéen moo ko mën a organiser waaye góor joxe rek la mën rawatina góor yi léegi nga xam ne daanaka joxeetu kon jigéen moo tax yonent bi nga dégg mu ne soo yaree benn jigéen yar nga nation loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam mu ne waaye soo yoree góor benn góor rek nga yar mu ne ndax jigéen mooy jógee fii sëyi Tuuba yóbbaale jikko yow nga jógee fii dem Italie yóbbaale sa jikko am fa borom kër am fay doom ñu nekk nationalité italienne wala italien mën nañu dem ba am yi jabari tubaab jikko ba nga leen nampal booba la ñuy yóbbaale kon yaa ngi tasaare muy dem moo tax jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne boo ko yaree yar nation bi yëpp sayyidatuna Aïcha nag di jigéen ju ñu yar biñ ko mayee seen ay ñoom ñëpp ma ne dangay xool jigéen bu am 18 ans amul doom moo tax ma wax ko léegi ci njëlbeen pourtant à l'âge de 9 ans. la sëy si kër yonent bi salaay sallam xanaa kañ xale bu ndaw moo war a mën a am doom gis nga yàlla lu ko neex def sayyidatuna Xadija mii nga xam ne bi muy dem ci loxo yonent bi am na 40 ans yonent bi am 25 ans juróomi juróomi doomi yonent bi yépp moo ko jur juróom benni doomam yépp moo ko jur kenn rek la ci jur mariyatul xibti yi jur ko muy ibrahima jeex na ñi ci des ñépp moo leen jur kii nga xam ne xale bu tuuti la ñu may ko yonent bi amu fa doom kon doom yàlla koy joxe li ma leen waxoon ñëw na te pourtant bëggoon na ko daf ko amul ah, bëggoon na ko daf ko amul ndax kuy sëy ku ne boo sañoon am fa njaboot ñu di leen joxañ ëllëg kii diwa ko jur bu ko yàlla dogalu nag dangay ngay xam ne yàlla dogalu ko waaye ko ne bëggoon na ko ma ne nag nga gis xale bu tuuti bu ñuy wax Seydatuna Aïcha mu am 18 ans yaakaarul tey ak ëllëg li firikat yi di wax ñoom Oustaz Sidi mbay yaakaaru Alaaji Malik ak Sëñ Tuuba Ablaay Ñas ak Cheikh Ibra Fall yaakaaru maam Amari Ndaak Seck ak yaakaaru àddina bi yépp muy rasulullahi kenn ku ñuy wax saydatuna Aïcha ku am 18 ans occupé ko ci feebaram patinewul paniquewul jaaxlewul afalewul tiitul ragalul am sang-froid bu mat sëkk gérer ko ak ak ak yi muy gis boole ci nga xam ne défilé bi boobu mu ngi mel ni tulleeg Mali ndax mooy dernière fan yonent bi fukki fan ak ñett la tëdd fukkeel fukkeel beeg ñeent la dem nga xam ne moo doon défilé malayka yi di defile waa ajjana ku ne nit ñëw di wax doléance am balaa yonent bi di dem mu ciy teg bëta léeg-léeg mu jékki-jékki ne yonent bi am na lu ma dégg muy yëngu de mu ne ko dégg nga ko mu ne ko ah mu ne ko ah am nga sens waaye gisoo ko mu ne dee mu ne ko huwa jibrilu kenn rek a mos a am sens teg ci bët muy sayyidatuna Fatima sayyidatuna Fatima rek ok yow bi may wax waa Touba yow laa ci jublu woon fii dem Touba. yóbbaale jikko waa Touba jógee tuubaa ñëw fii indaale seen jikko loolu jigéen rek ko mën a tas góor mënu waaw góor rek jigéen mënu góor mënu ba jigéen a ko mën jigéen rek moo mën a waat ne dinaa jur waliyu góor mënu moo tax maam jaara ma def ci benn bàyyil ba ci kanam tuuti ndax damay door a tàmbali maam jaara dafa mokkaloon alxuraan waaw li may wax a ngi noonu benn na ngi nii maam jaara 33 ans la am dundam yëpp 33 ans la ñaata doom la fi am sëñ Touba rek lañ xam waaye amul sëñ Touba kese waaye sëñ Touba sampi raaye gis nga boo baree ay doom fokk am ku ci yàlla fal kookaay yóbbaale géew ñi ci des yonent bi moom rek abdul muttalib jurul baayam donte nag moom benn la ci baayam benn la ci ndeyam yonent ci sallallahu alayhi wasallam ndeyam moom rek la am baayam moom rek la am génn àddina ndeyam it moom rek la am génn àddina amul ku mbokkal ndey amul ko mbokkal baay amul ku mbokkal ndey ak baay waaye maamam abdul muttalib fukki doom la am fukki doom yooyu tey abdoulaye rek lañ ciy tudd moo ci siiw boobu ndax moo sempi drapeau ba nga xam ne moo doon yaakaaroo mooy jur rasulullahi kon yaakaar mu toll noonu ndonol ñépp dekk ci sa loxo muy jigéen ngay jéem a sous-estimer jigéen kon xamoo valeur u jigéen maam Jaara 33 ans la dund am fi njaboot gi mu fi am jur fi ku toll ni sëñ Tuuba kon néewi at terewu la am jot néewi at terewu la baax Sénégal nag dangay toll ci at yooyu ñu naan doxal sag ndaw gone dong nga am na wala amul wala wala sax gone ga ci boppam moo koy waxal boppam damay xaar ba am 45 ans door a ku la wax ne di nga am 45 ans ku la ko wax Seydatuna Aïcha ànd ak yooyu yëpp bi ma ci jël rek mooy da ngay xool guddi yu ragloo noonu gudd yi yërëmtaloo noonu dangay am sa baay rek mu nekk ci kër gi feebar dootoo am jàmm nga am sa yaay rek mu nekk ci kër gi feebar dootoo am jàmm nga sa jëkkër mu nekk ci kër gi feebar dootoo am jàmm nga am sa doom mu ne ci kër gi feebar dootoo am jàmm waaye ki gën ñépp nag feebar tëddee ko sa néeg ngay gis nag di ci boole di dégg di ci boole waaye mu supporté amul amul fenn soxla jël yonant bi jël boppam teg ci poojam foofoo ma ci intéressé ñun ñëpp moo tax yàlla ne li taskunu ilayha nee na jigéen ñi ñooy dalal góor ñi moo tax toujours may wax ne na ki la wala daral ba la gënee rambax foo jëm àddinay tukki kon suñ njaboot bu jigéen ji nañ leen xamal ne ñoo yenu àddina waaw ku ci am doom bu jigéen defal ci boppam ne ko yow yaa yenu àddina bu ko yenuloo àddina ci bëgg sañsee ki yooyu non na xam boppam bu xamee boppam rek sañse dugg na bu xamee boppam éducation dugg na bu xamee boppam lépp dugg na Sayyidatuna Aïcha nag noonu lañ ko yaram moo tax yonent bi daan wax ne xuzu nisfa diinakum min hazihi lxumayra jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen ju tuuti ju xonq ji mu teg yonent bi ci poojam sallallahu alayhi mu ne léeg ma gis ko mu ñaq mu jël mouchoir bi teg mu ne tuuti rek dootul gis ñaq wi parce que du ñàkk ndax yonent bi daawul ñàq tàngooru nubuwa gi la nee na mucc gi bu ma tegee boppam ci sama pooj mu mel ni lu may lakk nee na ma teg bool Sayyidatuna Aïcha may wax def ci ndox jël serviette def ci nee na ma nupp ci ndox mi wañ ko teg ko ci jëbi di ko teg ci bopp bi mu ne waaye balaa am minit serviette bi wow koŋ mel ni luñ weer ci naaj mu ne ma di ko def ba bool bi gisatuma ci ndox mu ne ma dégg yonent bi naan wa inna lil mawti sakaraat ndekete dee am na wextan wa inna lil mawti sakaraat waaye waaye ndekete dee am na wextan xam nga lu tax mu doon ko wax bi Jibril ñëwee ni ko sa boroom nee bés bi jot na tey la daf ko ne maa ngi lay ñaan nga waxal ma sama boroom nekk ko dee bu dee cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf yépp na ma ko teg ma yóbbaale ko benn pour cent bi un pour cent bi mu séddaleel ma ko sama xeet bi yépp moo tax dee woyof de moom moo yóbbu degré quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi benn bi nag nel ñu yàlla di séddale catholique bi ci la bokk protestant bi ci la bokk animiste bi ci la bokk jullit bi ci la bokk tiijaan bi ci la bokk murit bi xaadir laayeen ibaadu rahmaan ñépp ci lañ bokk ci un pour cent boobu ndax ñépp ci xeetam lañ bokk un pour cent boobu la ñuy séddoo mu ne ba mu yàgg ma ne ma dégg ma saydatuna fatima woo mu ne saydatuna aïcha woowal ma faatima nee na ma jóg yëkkati boppam ndànk teg ko ci ngegenaay bi génn dugg néegi fatima ndax ñoo jélloo ne ko ñëwal wuyu sa way jur ndeysaan nee na mu dugg si bi mu dugg see yonent bi ne ko toogal mu toog ci cati tànk yi saydatuna Aïcha toog ci bopp bi yonent bi ne ko Fatima mu ne ko la bay ko mu ne ko dama lay dënk nga muñ ndax sa baay bi nga amoon tey lay dem ki may jël si léegi mu yegg si mooy malakul mawti ku jirim moo la ko teg waaye suñ borom a ko yónni nag xam naa ne boo xerewlee tuuti mu yegg si Fatima di jooy ndax ko ku sa bàyyi jàkkaarloo ne la maa ngi nii di dem matatul dix minutes moo ci des xam nga yërëmtaluñu yonent bi ne ko kaay ma wax la lu ma mosul wax kenn mu sëgg dox jox ko nopp ndeyjoon bi yonent bi ne ko bégal bu ma duggee bàmmeel yaa may njëkk a fekk si ndax six mois laa lay rawee sayyidatuna Fatima siggiree Sayyidatuna Aïcha ne ko bu ma jaaxal li ñuy wax ci jigéen a ngi nii sa jooy yu metti yi léegi léegi léegi nga toftal ci ree léegi léegi léegi firil ma ko lu la sa bàyyi déey mu ne ko daf daf ma déey lu ma bégal ndax dafa ma ne naa naa muñ bu duggee bàmmeel maa koy njëkk a fekk si ndax juróom benn weer la may rawee looloo ma bégloo may ree ma ne tey ku fi sa bàyyi woo ne la ay ay satu ay satu moom bàyyam noonu la koy wax ay satu mu ñël euh, juróom benn weer laa lay waree barki rasulilaay dana seeti imam diba dina seeti shérif dina seeti ku ne ne lañ waxal ci góor gi yaakaar naa yaramam sedd moom kañ na dem demam rek waaye na ma fi baax dëgg la wala du dëgg ah, ku ci sa bàyyi natt woon di nga xam ndax bëgg nga sa bàyyi wala déet ah sa xarit la ba tuddee la doom moom bàyyam tuddee na ko doom moo ko jur ba pare tuddee ko doom waaye géej naa ci yàlla ne bu la woon ne la ay seetu moom ni muy waxee ay seetu moom rek ko mën waaw waaw ndax xam naa ne ñi ko ñeme bariwut soxna aasi bu ñu mbaal ma rekk bu sëriñ Mansour borom daara ji moo ma ko nettali ci gémmiñam sama xarit la woon maa ko mujjee defal waxtaan grand théâtre feebar bi ko dab foofu la ko dabee man ci sama kanam bi may gunge bay wëññeeku foofu la ko feebar bi dabee man ci sama kanam wëññeeku waat naa sax fekk ñu évacuer te moo ma gunge bi ci biir bi may ñëw ba ma gàttandu yóbbu ma ba ci salle bi toog nii jàkkaarloog man ne ma waxtaanal ma ci sëñ Babacar si garante Théâtre ma seeti ko Tiwaawan nag ci feebar bi boobu mu ngi sonn waaye li muy sonn sonn mu ngi ca waañ wa ci waañ wa laa ko séet fekk muy séddale ma ne ko waaye soxna si yow yaa ngi feebar bi pare nekk ci waañ mu ne ma ah feebar bi gannaaw Chérif damay dem rek kañ amul solo ma ne ko dem mu ne ma sama papa du waxantu te moo ma woo ne ma aasi ma ne ko si mu ne ma yow six mois laa lay rawee mu ne ma te xam naa ne lu ma mos wax am na moo tax may préparé xam naa ne sama feebar bii du ma ci jóg moo tax may préparé togg gii may jox nit ñi yàlla fay ma ko ëllëg bi ma ko seetee fi mu gaañoo matul fu ma fanaan nga fanaan fa fu ma yendu nga yendu fa lu ma xam wax na ak ma nommé la ambassadeur ca Chine wala ca Washington bu la gënal ministre d'État auprès du président de la République waaw mag mu yem ni yàlla ne la dama bëgg ñu nga ñëw nekk ak man ak ma bàyyi la ci àddina bi ngay dund ak benk mi ñenke àddina bi nga xam ne yonent bi lu ne dégg na ko lu ne loo xalaat ci kaw suuf lu Chérif Ibrahima dégg bañ koy yërëm yonent bi dégg na junneem lu Seydi Xaaji Malick dégg bañ koy yërëm yonent bi dégg na milliardam lu sëñ Tuubaa dégg bañ koy yërëm yonent bi dégg na 4 milliardam li yonent bi dégg ci waxu safaan kenn dootu ko dégg ci kaw suuf lim daj ci safaan kenn dootu ko daj ci kaw suuf waaw buur bu toll ni yàlla bind ko yónni ko ne ko tànnal ñëw fekk si ma léegi wala ma bàyyi la ci àddina nga dund num la neex doo màggat doo ràpp dangay nekk yonent doo feebar dara du la dal ba bés peñ ci taxaw rek ma ne malakul maw tey la bés peñ ci jëlal ma yonent bi indil ma ko te du yàq dara ci sama diggante ak yow mu ne ko tànn naa fekk si la léegi ci ni mu gën a gaawee eh, kii xam na fa mu jëm xam na fa mu jëm moo tax waaye kalaas Chérif Ibrahima gii nga xam ne xamuñ dañ leen di nakk wala dañ leen di teral moom toog fi ba ca kanam lañ bëgg yàlla dogal yonent bi ne ko tànn naa dem waaye may ma ana jibril yonent bi baax mu ne ko may ma du ragal dee de may ma dafa am lu ma bëgg a lijjanti ana jibril mu ne ko jibril de talu dara mu ngi ca goxu asamaan yi di wax malaaka yi ñu préparé drapeau xam hamdi ma suñ ko tàllal tàllal nañ ko waaye dañ ko def en berne tàllal nañ ko firi ko waaye dañ ko def en comme bu dee national amee rek noonu ñuy def drapeau yi mu ne ko noonu lañ def liwaul hamdi sa roox gi la malaaka yépp di xaar malaaka yépp a ngi nekk garde à kenn ñemewu la yëngu mu ne ko jibril la nga fa di leen ci mu ne ko ne ko mu ñëw léegi dama ko soxla malakul mawti wax ko boromam boromam ne jibril dawal rasulullah def la soxla mu ne cëpp ne sama borom nee na mu ngi lay nuyu ah, yonent bi am lu kenn amul sama borom nee na mu ngi jotal nuyoo ci yow yonent bi ne ko maa ngi koy fay mu ne ko nee na danga maa soxla mu ne ko waaw malakul te ngi nii toog te man lay xaar mu ne ko luy luy soxla si mu ne ko sama xeet wi ëllëg nooy def ak ñoom su ma fi jógee wax ko yàlla ne ko nu mu leen di def seetal lii toll ci circonstance boobu di xalaat njaboot xeetam mu ne ko ah loolu de aw ma ci xam-xam bàyyil ma dem Jibril ne fay diggante asamaan ak suuf du ko def benn seconde yàlla mën a may te yonent bi biñ ko laajee diggante asamaan ak suuf distance bi dafa ne diggante asamaan bu njëkk bii ak suuf sii ñu nekk boo ko doon dox doxu cinq cent ans la juróomi téeméeri at yoo noppalu ca waruwaay wi gën a gaaw ngay wax pour mën a yegg asamaanu benn mu ne diggante asamaanu benn ak ñaar noonu la ñett ak ñeent ba juróom-ñaar be arash be yu be arash te jibril arash la daan dem yàlla fu ne la nekk waaye rendez-vous yi ci ëpp arash lay lay fekk suñu borom bu dee alquran baytil maamuur lay yem wala lawxul mahfuz début bi pour ñi may seetaan a am na ñoo xam ne contesté rek lañ ma début bi début bi lawxul maxfuus la daan dem di jël aaya di indi walla saar di indi ba weeru koor bés biñ dogalee weeru koor ci la jibril jëlee alquran yépp ca lawxul maxfuus indi ko ci asamaanu benn bi pour mu gën a jege yonent bi ci lañ laajoon yonent bi ne ko alquran li muy réy réy nu mu toll ci lawxul maxfuus mu ne benn ligne la ak moitié benn ligne ak moitié al kaamil bi yëpp te kaamil bi xam nga ñaata saar la 114 6666 aaya di benn ligne ak dogit ca lawhul mahfuz yàlla na jibril jël ko nga indil ma ko ci asamaanu benn pour bu ma bu ma la soxlaa mu gën a gaaw mu jël ko indi ko asamaanu benn moo tax mu ne fii laylatin mubaaraka du dégg ko ci alxuraan inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka booba lañ ko toxalee fale indi ko fii li asamaan di sori sori jiblil benn laafam lay tàllal rek yegg benn laaf rek lay tàllal yegg ne suñ borom yonent bi nee na nooy def ak xeetam bu fi jógee mbaa doo leen mbugal wala nga soppi leen ay golo ni nga ko defee woon nitu yonti yàlla Muusaa ya xiradata wal xanaasiir ak i mbaam xuux mbaa doo leen ko def ginnaawam walla nga di leen duma duma yu metti mu ne ko ne ko man yàlla du ma weddi sama bopp te maa ko waxoon ne laa yu'adhibuhum allahu wa anta fihim wala yuazibuhum allahu wa hum yastaghfiruuna ne ko du ma weddi sama bopp duma leen mbugal fekk yaa ngi ci seen biir yaa ngi dem nag waaye duma leen mbugal fekk ñu ngi wax astaghfirullah di ma jéggalu jeex na mu ne ko des na de mu ne ko bu des mu ne ko demaatal ne sama borom yowmal xiyaam bu ñu ñëwee naka lay def ak sama xeet yi mbaa duñ fa yàgg ndax taxawaay ba day métti te bëgguma ñu bokk ci xam nga taxawaay yowmal xiyaam ñaata at la juróom fukki junni at cinquante mille ans ci atu àllaaxira te benn atu àllaaxira mooy benn atu yàlla te yàlla wax ne inna yawman inda rabbika ka alfi sannatin mimma taudun yàlla nee su ngeen limee yéen waa àddina bi am milan ans man yàlla maa ngi door am vingt-quatre heures te boobu mooy konte ëllëg yonent bi neen la tax mu demandé ko mu ne di nga gis ku taxaw taxawaay bi yàgg-yàgg boo xam ne ba pare yàlla day wàcce jant bi ba mu tolloog juróom-ñaari xasabu malayka mu renforcer ko boole leeru jant bi ak weer wi wa jumi a samsu wal yàlla ne damay boole leeru jant bi ak leeru weer wi bàyyi ko ba mu tiim seen bopp yi ma yokk tàngoor bi yonent bi nee na di nga gis koo xam ne yuur gi day bax ba mel ni cin loo teg def ca ndox muy bax mu ne di nga gis ku ñaq ba ñaqam labal ko mu ne loolu tax ma laaj sama borom sama xeet wi ëllëg nu mu leen di def jibril ne ko may ma ma laaj ko mu dem ñëw ne ko sa borom nee na dina leen keral taxta zillil arsh yowma la zillu illa zilluhu ne ko sa xeet wi sa borom nee na dana leen keral ëllëg ca aras ca ker ga nga xam moom sël moo fay ker beneen ker amu fa yonent bi ne ñun ñëpp mbaar mooma la ñuy taxaw mu sedd yi kenn du yëg dara ñu climatisé ko mu ne dangay jékki-jékki rek ne waaw man dama doon dégg taxawaayu xiyaama kañ la mu ne malaaka bi ne la yaa ngi ci bi mu ne ah métit bi ma ci daan dégg yëpp yëguma ko mu ne ko garanti bu leen garanti yonent bi garanti woon a tax kooku moom rek kay moom rek kay waaja moo tax ñi xam ñëpp daw dem ci moom moo tax maam borom Touba limaam yëpp mu jox ko Seydaa ji Malick limaam yëpp mu jox ko dama wax ne man ku ma fekk may associé <laughs> président Macky Sall compte bancaire xam nga ne man damaa bëgg a defar sama affaire rek. wala waaye président Macky Sall it bu amee mbaax gu day dina ma kaay ñu bokk compte bancaire loo am def ci rek man du ma vérifier yaa moom wala maa moom loo bëgg a retiré yi retiré man sama bamba maase na <laughs> wala déet waaw yonent bi comme comme ne kaay ñu associé xam nga ne doo perte te mag ñépp fexe nañ ba associé ak bi moo tax seen lépp yonent bi téyel leen ko moo tax seen lépp yonent bee ko téye tabaarakallaahu bi mu waxee loolu Seydina Jibril Seydina Jibril wax ko suñ borom mu ne ko kon léegi nag nangu naa demal soo demee neel ñépp sama roox gaa ngi ñëw waxal malakul mawti ne ko bismillah malakul mawti dugg siwaat saydatuna Aïcha xool yonent bi yonent bi xool ko mu ne ko Aïcha mu ne am mu ne ko heure bi jot na dal di commencé baat ya nag di tudd yàlla moom rasulullahi Aïcha mu ne ko ah mu ne ko heure bi jot na léegi nag maa ngay dem ñaari baat la doon wax na Aïcha nee na maa ngi ko dégg ñaari baat rek la doon wax gannaaw bi mu bi mu santee boromam gërëm ko ci teraanga yim ko defal ñaari baat rekk laa dégg muy wax mu ne maa ngi dégg mu naan Aïcha wax leen nit ñi ne leen wa aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanukum wa aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanukum wa aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanukum bali rafiq al aala ba rox dog xam nga lu muy firi maa ngi leen di dënk julli maa ngi leen di dënku julli na ko fonk ak jaam yi yàlla teg ci seen loxo ngeen respecté leen jaam amatul xam nga lu am léegi mbindaan mbindaan mi nga jël dugal ko ci kër gi muy liggéey yonent bi nee na nga ko jox cër bi nga jox sa bopp buñ la jox cër ba nga fàttali la fi indi waaw kañ c'est très important ñaari côté yépp la yonent bi nee na yow mi am mbindaan ci kër gi li ngay lekk na ko lekk fa say doom di tëdd na tëdd fu ni mel la ngay naan na ko naan waxuma de yonent bi ay wax te billaahi bari na tey ku tardé mbindaan yee la tardé ndax nit liggéey dooleem ba noppi nga war ko fay di ko dawloo wala lu tuuti rek nga teq ko ne ko da nga absente ñaari fan te yow ñaata yoon nga absenté fa ngay liggéey te kenn tequ ko ci sa sol bor bu set nga rey maam ndax dem ngénte bor bu set nga feebar feebarloo nijaay ndax dem ngénte bor bu set nga tëral yaay ndax dem dëj te kenn daggu ko ci sa sol jànq bii ci kër gi ne la sama yaay kat daf ma soxla benn fan rek nga daggu ko yaa ñàkk xol te la nga koy fay du dara cinquante mille soixante dix mille cent mille jànq bu ci fayeeku cent mille xamal ne am na soldu pire dëgg la wala du dëgg ah damay baax rek di wax cent mille waaye ñiy fay fii cent mille ah yaakaar naa man nañ leen wàññi de jànq bu ñuy fay cent mille fii ci ndakaaru mën nañ koo wàññi man waxuma de yonent bay wax de koli wa aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanu jaar yëpp waxuma de yeneen ci bee wax yërëm leen jànq yi ngeen employé ci kër gi ñu di leen liggéeyal bu dee góor booy bi wala gardien bi ci bunti kër gi léeg nga gis ñu leen traité façon boo xam ne dafa ñaaw booy lekk sax doo leen woo defal leen ci assiette boo xam ne ku la ca defaloon yow doo ko lekk jalax ko ko mburu ma ngay ndékkee sax danga koy denc am na ñoo xam ne ci seen xaalisu bopp jànq yi ci la ñuy jënd seen dékki bopp beneen bi ci topp mooy togg ba noppi du ko mos booboo gën a garaw billaay moo tax borom kër yu bari wératuñ sa jànq togg ba noppi yaag sa waa kër ngeen lekk ko te jànq bi mosu ci gannaaw lam ca mos xorom nga yaakaar ne di am jàmm doo ko am bari nag borom kër boo gis koll bi ne futt ñu naan biiru patron <laughs> biiru waaj dee la waaye du biiru patron wa aleykum bi salaati wa ma malakat aymanukum loolu la yonent bi muy ci recommandé génn àddina léegi nag mu des génn na àddina ñun ñii ñu ci bari rek góor ñu ci bari rek ñemewuñ néew waxuma la ak jigéen góor ñu bari rek ñemewuñ néew waxuma la ak jigéen Sayyidatuna Aïcha nee na ma xool ko xam ne dem na ma raay kanamam fóon ko ci lexi ndeyjoor fóon ko ci lexi càmmoñ ne ko yaa teey bi ngay dund yaa teey bi nga fi jógee yaa am ko lëre te sàmm mbokk xaw ma foo jëm de waaye teraanga rekk nga fay fekk dal di ko muur woo sayyidatuna Fatima sayyidatuna Fatima def noonu foon ko ci laxi ndeyjoor foon ko ci laxi càmmoñ foon ko ci jë ñaanal ko yàlla muur ko Sayyidatuna Aïcha ne ko may ma nag mu génn mu des fa am lu mu wax ak yonent bi loolu secret la yonent bi tontu ko te dem na moo tax mu ne Fatima may ma démb rek nettali naa ko Chérif ay Aïdara ñu bari xam nañ ko nettali naa ko ci xadara bi démb Chérif Zakaria dara ndey ndar la nekkoon ci kër Sëriñ Alfa Xumma xaritam la woon dem leen ngeen laaj sëriñ Modou Mouhamad Xumma di xalifa wala ngeen laaj Moussa Wade bi ci Pikine di gorom Chérif Zakaria dafa génn àddina bañ dugal ko ci biir néeg bi muur ko pour wooyi ñoom sëriñ Xumma soxna si di yuuxu ak njaboot gi mu jóg ndànk génn ci ëtt bi ne leen lu may dégg yuuxu bu ma fi dégg yuuxu yéen ñëpp tëj leen seen gémmiñ ñëpp ne kamaj mu demaat ca néeg ba tëdd billaahi wal kitaabi shérif Zakaria Aydara moo moo doon denc ci Faatu Wàdd moo bokk ak Moussa mii nga xam li ma lay wax ni demal ndar nga laajte jóg génn ba ci ëtt bi ne leen lu may dégg yuuxu bu ma fi dégg yuuxu demaguma sax ngeen may lëjal ak yuuxu lu xew ba ngeen di yuuxu ñépp ne kamañ mu delluwaat tëdd ci lañ wooy ñoom sëriñ Alfa Xumma ñoom euh, Abdou Wahab Diop ba nekkoon si ndóoni ñoom sëriñ Iyaan ñu defar ko lu ko jiitu feebar na ku doy waar la woon te daanaka nit ñi kenn xamu ko feebar na mu dem ci médecin boobu bëñ koy métti mu dem ci dentiste bi ndar pour ñu dindi bëñ bi parce que nee na bëñ bi def ko sonal bi mu demee tëdd ci pélé fii xam nga dentiste yi fi muy tëdd ne ko daal médecin bi ne ko ŋaanga mu ŋaang rek médecin bi xam ñu tëpp tëppal ba mu ximmale ko ne ko lu xew mu ne bi mu ngee leer gi génn ci gémmiñam gi moo moo moo gand samay bët ba ma xam shérif ne ko loolu du dara continuel mu ne ko man sa bëñ de yàgg moom waaye du ko laal ba léegi bëñ bi kenn dindiwu nit ku doy war la woon te kooku jegewul sax yónnant jegewul sax yónnant ci la saydatuna Aïcha nag ñëw wax ak yónnant bi la mu wax ak moom génn tëj néeg bi jël caabi ji def ko comme kamara takk ci ndigg ba di baagante na woo Bilaal ne ko demal ne Seydina Omar boobu si baayam Seydina Abubakar newu fa mu nga aye ci soxnaam bu nekkoon gannaaw Medinatul war a xawoon na sori mu ne ko demal nga ne Omar sang bi dem na soo fa jógee continuer na Seydina euh, osmaan sang bi dem na soo fa jógee demal na seydinaa Ali sang bi dem na maa ngi nii di yónnee ndaw ci sama baay pour ñu wax ko mu ñëw ne Seydina Omar sang bi dem na mu ne ko ban sang mu ne ko Rasulullah mu ne ko bu ma ko déggati de bu ma ko déggatee yow moom génnee jaase mu ne ko sama yoon newu ci dal di teg Mouhamad Ndiaye Jamil Babacar waaw kay Babacar it Jamil waaw Jamil Jamilun rek yal na ko yàlla dogal bismillah jege leen taabal bi yéen a ko moom ñu ngi leen di wax bismillah aw kañ njaay jërëjëf Babacar ba nga may soxna ba tey neexoo gis tabaarakalla saydatuna Aïcha Seydina Omar dof ci saa si xoolal te Seydina saydatuna Aïcha ngi ne cocc di régler mbir yi dama leen bëgg a woon ne jigéen force bi mu am góor amu ko tiitul raful yëngatuwul afalewul Seydina Omar moom dof na bu yàgg mu jigi muy génn ci penc mi di déglu ndax xale yaa ngi ko yëg nañ ko wala yëguñu ñëw ci xale yi naan leen da lu ma dégg ngeen di wax xale yi ne ko papa lu xew mu ne waaw en tout cas daal ku ma fi dégg nga ne yónnent bi dem na danaa la rey booy yi di daw mu dem ci Seydina Ousmane ne ko sang bi dem na mu ne ko sang ban mu ne ko rasulullah mu muuma ci saasi mënatul wax mu jubali ci Seydina Ali te moom la ñépp ne jàmbaar la te muy jàmbarkat jàmbar jàmbaar piir ñëw ne ko sa frère sa lépp sang bi dem na mu ne ko ban sang mu ne ko rasulullah mu ne bëreet ne mbëpp su ne bëreet ne mbëpp mënatul jóg fi mu toog mu toog boobu yàlla affaire la nar ñu yónnee ci Seydina Aboubacar distance bi moo yàgg boobu fas rek a am muy lundi mardi ndaw li yegg waaye boobu tàkkusaan weesu na waaye gis nga ko ëppalit moom bi mu ñëwee ba ci bunti dëkk bi xamul kër gi Seydina Aboubacar nekk mu fekk benn jardinier muy defar toolam mu ñëw ne ko papa papa mu ne ko ah, mu ne ko fuy kër abu Aboubacar fu mu nekk fii mu ne ko doom loo koy doyee sa xel wi rëy na sa xixet wi metti na looy doyee Aboubacar mu ne ko sang ba moo dem rasulullahi waa ji mu ngi yoroon paaka bu mu doon defaree tàndarmaam yi di dagg mu jël paaka bi ne capp ci benn bët bi jëlaat ne capp ci beneen bët bi waa ji ne ko lii nag mu ne ko bët yu daan gis rasulullah nga ne ma dem na lu may doyee doyeeti xool <laughs> mu ne ko soxlaatuma gis amti ne dem wax ko Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar war ci guddi gi ànd ak moom waaye bi ñuy yegg si àllarba jot na ci yor yor la Seydina Aboubacar yegg si yor yor tembe 9 heures 10 heures ne ana Omar ñu ne ko mu ngay wax yu kenn xamul mu ne ana ali ana seydna ousmane ñu ne ko moom day faf mënatul wax sax moom mu ne ana seydina ali ñu ne ko moom fa toog mënatul jóg dafa paralise ci saa si mu ne bilaal mu ne ko labbayka ya rasul ya abi bakarin mu ne ko demal ca jàkka ja nga nodd bilaal dem nodd nodd booboo leen pikiir ñoom ñëpp ñu jóg jàkka ji kër këpp ñépp fees terewul sayyidatuna Aïcha nga ca bunt ba di baagante bañ ko dugg ndax nit ñi dañ dañ kumpa waaye bi bàyyam ne Bilaal demal ca jàkka ja nga nodd dafa ne Aïcha jox ma caabi ji sayyidatuna Aïcha ne ko déedéet maa lay ubbil ndax waatul buyuta min abwaabiha yaay sama baay waaye maa la fi gën a yeey néeg bi sama néeg la ki fi tëdd sama borom kër la walla boobu personnalité maa la ci gën a yeey caabi bi maa la ci gën a yeey dal di ubbi dugg ne ko bismillah mu dugg si Seydina Abubakar ñetti fan xool leen ni mag ni Medina tàngee ku mas a dem Medina ñetti fan amul galaas amul dara Seydina Abubakar ñëw muri ko mu mel ni tey la fi jóge mu def ni Seydatuna Aïcha def ak Seydatuna Fatima fóon ko ci lexu ndeyjoor fóon ko ci lexu càmmoñ fóon ko ci jë ne ko yaa teey bi ngay dund yaa teey bi nga fi jóge dal ko muuraat jubali ca jàkka ji ca jumaa ji fekk mu fees del mu yéeg ci kaw minbar ba comme kuy xutba juma in maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi fa lan yadura allaha shay'an waa sa yajzillahu shakirina Seydina Aboubacar Seydina Omar Diop ne ko Aboubacar mu ne ko la labbayka mu ne ko dafa mel ni aaya bi tey la wàcc maa ngi koy door a dénk xam nga luy lu mu firi daf leen ne ku daan jaamu yonent bi xam leen ne dee na ni yonent yépp daan dee du du du yàlla du malaaka dee na comme ñépp bés ni tey ku ko daan jaamu nag kon sa jaamu dagg na waaye ku doon jaamu yàlla nag yàlla jim ñu yoonoon ku koy jaamu xam leen ne xayyun laa yemul yàlla moom day dund te du dee dal indi aaya bi ne moom mii tëdd newutoon lu dul comme yonant melutoon lu dul yonant yi ko jiitu woon ana yonant yi ko jiitu woon dem nañu moom it dem na su fekkee demam ngi moo tax ngeen wëññeeku nekkaat ay yéeféer def leen ko ngeen nekk ay yéefar du wàññi yàlla dara ci nguuram gi ngeen continuer di ko jaamu du ko yokk dara ci nguuram gi ndax yàlla yàlla la lu jiitu yéen falan yadur allaha shay'an mu ne waaye nag am ngeen sens wa sayajizillahu shakirina yàlla dana fay ki koy sant ci xéewal yi di ko sant ci nattu yi Seydina Omar jóg ne ko wax nga dëgg dafa mel ni tey laa door a dégg laaye ji mu ne acca bismillah comme yépp dellu na dans l'ordre dal dina léegi nag nañu organiser jullee gi xam nga fii ku génn dina benn nit a lay jullee waaye moom saxaaba yee njëkk ñëw par kenn waaye saydatuna Aïcha njëkk moo ko njëkk a jullee saydatuna Fatima ñëw jullee ko soxna yi ci des daje ànd ak saydatuna Aïcha ñu jullee ko génn Seydina Abubakar moo ne ku bëggoon ni xale la xam naa sëñ Saaliwu Mbàkke moom la roy mu ne nañ woo xale yi ñu woo xale yi ne leen seen maam dem na ñaanal leen ko xale yi taxaw wax la ñuy wax génn saxaaba yi door a ñëw jullee parcourir parcourir parcourir benn jeex mu des benn problème problème bi des mooy fu ñu koy denc looloo des ñu ne nañ laaj sayyidatuna Aïcha ndax moo ci gën a yeey mu ne ah damay bañ wax ñu ne man may soxnaam waa ansaar muy waa Medina ne fii lañ koy denc ca bàq ya waa Màkka ne yéen a mu juddoo ci ñun dañ koy delloo ji ga mu juddoo kenn ci lansaar taxaw ne yéen a ñeme yàlla yéen a ko génnee ba muy naqari ñu fat ko bi muy naqari dootuñ leen ko delloo fii lay des ci ñun ah coow ne ko Sayyidatuna Aïcha door a àdduwaat ne leen dégg naa mu wax ni ci dundam ab yonent bu génnee àddina néeg ba mu génnee àddina sax kenn du ko fa toxal foofu lañ koy denc xoolal li gën a garaaw ñépp ne wax na dëgg ñaxamoon xamoon ak ña ñépp maase ne wax na dëgg ñu ne boobu feeti na boor ñu ne des na sang bi ku koy sang Sayyidatuna Aïcha ne ah foofu nag may àddu dégg naa ko mu ne bu ngeen ku koy sang bu ngeen ko futtee ka koy sang ay bëtam dana dem dana nekk yéefar te du ko raw ñu ne kon nu ñuy def mu ne nee na moom ay yëreem lañ koy sangee dañ koy sangaale ak ay yëreem ngir barkeel waaye moom taqul taqul ndax ba muy ñëw taqul kon bi muy dem du taq ñëw a gën a garaaw te bi muy judd deret sax taxu amul benn taasu deret bu taq ci moom amul lenn luy tilim tilim lu takk ci moom bi muy ganee àddina amul kon kañ kooku buy dem du taq koo xam ne bu mosaan naaj bi mu mosaan tàng nee naa la mosul ñaq moom rasulullah bu naaj bi mosaan tàng bi nga gis jëmi di briller boo ko jegee xet gi koy xeeñ parfum boobu dañ wax ne mënul am sax ci àddina ndax xet gu neex kooku xam nga daawul tuuf tufli amul ñend xet yonent bi ma daawul ñend daawul tuuf tufli amul rongoñ amul laas lenn lu salte am yonent bi amu ko yàllaa ko setal ba set wecc ñu door a tànn nag ñi koy sang loolu duma ci dugg Maodo wax na ko waaye ñett lañ kii di sotti kii di ragg kii di wëlbati mu des biñ koy sang mu ne déggoon naa mu waxit ne moom bu ko kenn sàngee ni ñuy sàngee nit ñi nañ indi juróom-ñaari mètre yi rekk lal ko yëkkati ko teg ko ci lëmas ko takk ci bopp bi takk ci tànk yi jeex na nii lañ sàngee yonent bi mu ñu ne des na buñ koy denc nuñ koy dencee mu ne ah déggoon naa mu ne diw ak diw ba ci usaamatu ci la bokkoon déggoon naa mu ne nañ ko nangu dugal ko ci bàmmeelam usaamatu ibnu zeyd ci la bokkoon ñu dugal ko ci bàmmeelam damay bañ a weddi sama bopp rek waaye day yàq waxtaan ñoom tafsir gay ñoom bëgg nañ ko nag ak ñoom oustaz mi le Sidi waaye baax na léegi nag bu kenn indiwaat Sayyidatuna Aïcha nee na mu ne mu mu àddooti ne leen dama déggoon mu ne bu génnee àddina nañ ko yëkkati puus lal bi teg ko natt fiñ ko teg gas mu ne buñ koy gasit waxoon na ne nañ ko def ñaari kër nañ gas benn mu wàcc ñu gas benn ci biir pour dugal ko fa buñ paree nag wut ay xeer teg ko ci pour mu bañ a wàcc ñu joor a wàccee suuf noonu dañ gasalee yonent maanaam dañ gas nii mu wàcc ñu gasaat nii lu tolloog hauteur bi ñu gas nii nga xam ne bu ñëwee dañ ko fay dugal puus jël ay xeer teg ci gannaaw door a wàccee suuf si xam nga lii métti na ñépp nag noonu lañ leen war a defal waaye Dakar mënuñ ko xam nga lu tax suuf si day wàcc moo tax eh, nit ñuy robee nit ñépp ko waroon di fekkee waaw bu yàggul rek bi may nangoo Habib Seck di ko dugal ci biir bàmmeel bi ma alaaji bi Seck yàggul dara ci laa dem eh, Paris nii matagul weer wala ci lay yem est-ce que mat na weer bi ma tiggee ba di ko wàcce ma ne ñaari doom yi ñëwoon xadara démb yow téyel ci tànk yi kii tollal ci ndigg li man ma nekk ci bopp bi bi ma ko wàccee ba tëral ko ba ngegenaayal ko taxaw naa lu yàgg nit ñi foog ne damay ñaan ñaanuma woon tus xam nga lu ma doon xalaat nii ma ko defal man ku ma koy defal billaahi wal kitaabi loolu laa doon xalaat nii ma defal alaaji Habib man ay man Chérif Ibrahima ku ma koy defal ëllëg xaw ma ko ñun ñii ku ko xam ku la koy defal meer Mbow maa ko ko defal meer Mbow benn bii bokkoon ci yéen man maa ko ko defal waaye man ku ma koy defal kenn xamul moo tax koo gis rek ormal ko parce que xamoo ci yenn loxo ngay mujj kenn xamut ci yan loxo ngay mujj te Sénégal fi mu ne laisser-aller bi bari na saagante bi bari na xasante bi bari na da ngay dëkk nit sax ci koñ du ngeen am jàmm jamais dëkk ak nit ci biir kër gi du ngeen laale. te billaahi xamoon ndax moo génnee àddina moo lay mujjee wala déet kon amal a jàmm ñëpp te loolu ku ne war na ko di xalaat ku lay mujjee si ça problème moo tax mujj rek a am solo mujj rek Momadou Ndiaye mujj rek a am solo te ku ne war na di xalaat ku may mujjee ci yan loxo laay mujj te lu jar xalaat. yow loo xam ne boo demee xamatoo ci sa bopp dara loo mën dañ la ko defal yal na nga tombe ci ñu baax lii rek la de nañ bàyyi xel àddina boo gisee ma indi ko àddina moo lëj foofu lañ toll woon daanaka waxuma sax ci laxdari bi ndax jamono moo ko laaj li ma li sa yi di doon wax léegi eñ eñ bi bari ñàkk juboo gi tëru tëruwante bi ëkkuwante bi xeexante bi tibbante tànk lu ko jar ci loo xam ne léegi nga dem loo fi xëccu ba jot ko na la wóor ne ñàkk ko rek a fi sës loo xëccu ba jot ko rek ñàkk ko la preuve ana président lay wat vingt six ans mu bëgg a nekk président ba mu ko nekkee douze ans jeexal ba yow mal am dootul nekk président dëgg wala du dëgg ana Senghor fàtte nañ ko bu yàgg mu nga ci armeel yi ana Abdou Diouf vingt ans dix-neuf ans de pouvoir ñàkk na ko dootu ko nekk ba bés pénc bu ñëwee Sénégal sax kenn du ko yëg kenn du xam ndax président Abdou Diouf ñëw na kii fi nekk mu ngi ci dernier mandat 2026 incha allah fàtte nañ ko bu yàgg fàtte nañ sax na dina fi mille vingt jaar 2026 na ko fiy tudd ñenn ñenn ñenn ñoo ko fiy tudd ndax 2024 mooy élection yi jeex damay wax noonu rek xam nga 2027 def 5 dina fekk installation ñi ngi koy tudd ba tey waaye 2026 dootoo dégg ku ko tudd ndem Ablaye Wade la nit ñi mën a fàtte ak lim def ci teraanga ay eh, waay waxuma laa keneen ndém président Wade la nit ñi mën a fàtte mën koo wor mën a toog fële tey di ko xas man de dama yéemu ci Sénégal léeg damay xool nit ba mu yàgg ma ne kii est-ce que soppi wuñ ko kii moo daan wax mais am na nit ngor goo war a am boo xam ne loo loo loo loo mën a mel deseen sa ngor exemple lay joxe waaw exemple rek laay joxe xam nga lu tax àddina dafa jeex ba noppi ñiñ fi tudd ñëpp pare ne ñun ñii yan na yàgg rek lañ ci mën te ànd ak teraanga rek loolu rek lañ ci mën wala déet ana Mooda Jaxate barki démb lay seetaan eh, suñ ndokkeel biñ pas ndokkeel premier ziyaare Louga biñ njëkk a dem def convoi te mbundu xataaloon ñu daanaka mbugal ñu <laughs> boobu mbugal lañu dem mbugal laa ilaaha illallaah suñ mbokk tukulóor yi won nañ ñu fa loo xam ne 2010 dañ ñoo mbugal a mbugal a mbugal a mbugal ndax kenn ndikkiwut kenn añut kenn reerul ba minuit Thierno Bachir yëg ko nag ba ko Thierno <laughs> xaar nee na ca la fa gijee mooy yee ji kenn ndékkiwul Modou Ndiaye kenn añut kenn reerul pour wan la àddina nim jafe kilifa yi lu ne la daj mais njaboot moo leen dul dimbali booba ñu ngi ñu waroon dalal pale ji li mbay radiyallahu ñun ñu ñëw ak suñ kaar jubali pale ay kaar boobu yaakaar naa cinq kaar la woon ñu jubali pale parce que boobu dama leen ne dañ ma ne ñaata nit ngay àndal ma ne leen cinq cent personnes ndekete gëmuñ ko parce que Sénégal dañ gëm ay waxu jaaxaan ndekete gëmuñu ko après lañ ma wax ne gëmuñ ko woon mooy indi catastrophe boobu biñ yegsee ba gaare buntu pale ji li mbay man maa ngi fekk ñu lalal ma ay séri rabal ba ca biir xale yépp xam nañ li may wax ma ci séri rabal yi ba ca biir ne leen waaw ñëw naa ak ñi ma àndal fu ñuy dal ñu ne ma seen ndékkee ngi nii billaahi wal kitaab yi benn taabal lañ teg ñeenti kaasa ci nekk ak ñaari fromage ak ñaari ak ñeenti mburu nuñ koy waxeeti bii bii xale yi bëgg rek déedéet déedéet bële dama ko du lekk moo tax mënuma koo xam croissant croissant yàlla xam na ne man moom laa gën a mën a bañ a lekk ci mburu bëgg naa ko waaye du ma ko lekk man so sopp ko te nit ñi moom rek lañ bëgg croissant ma fekk ñu tegal ma ci man xam nga ne li nit ñi gën a bañ laa gën a bëgg mburu ban man mburu ban ak cere moom laay ndikkee li ci ma fekk ñu teg ko ma ne leen ana njëkk ñu ne mu ngi ma ne leen da ngeen ma yàpp génn leen ngeen xool ñi ma àndal ngeen tegal ma yu bon yi waaye xam nga événement bu toll noonu ma woo Thierno Bachir jotuma ko ma woo bëgg nit petar ci ko ñu daw ñëw benn tey ñu lank ne luñ dugg ci biir mujj garde di koor yi ma àndal ñoo ñëw fekk garde yi fi ñu taxaw rek ñu wañaar seen lox nang caabi ji ubbi na ñëpp dugg leen ñëpp dugg ñii ci taati garab yi ñii ci fële waaye taxul ñu am luñ lekk ma jot Thierno Bachir nag Thierno Bachir mer am lu ko naqar ne ma dem leen ngeen ñibbi waaye balaa ngeen di dem xaaral ci la indi nag ay keesu banaana keesu pomme keesu orange di ko séddale nit ñi ci kaar yi te matutoon sax kaar yi Thierno nag moo waral 2010 boobu waxtaan boobu. ci la ma yónnee ñaari ponkali nag bu ci ne sept cent mille lay jar teg ci deux cent cinquante mille ne ma nanga ko rendi ña demoon ñépp xam nga leen nga woowaat leen teralal ma leen xam ne ñooña ñoo koy def waaye man du Bachir du man Bachir looloo waral waxtaan boobu 2010 ma koy seetaan barki démb nag gis moo da jaxate ci kaw ndeysaan ñu bari ma gis leen ñi ci bari génn nañ àddina ma ne àddina daal moo gàtt xoolal 2010 ak léegi ñi ci kaw ñii ñëpp faatu nañ kenn fa des ku faatuwul ñëwoon ca kaw ma ne xoolal àddina di lu lo 2010 ak léegi ñaata la ah 9 ans kon lan moo fi jar xëcc kërama a ngi nii doo ko fi fanaan mu nga ca armée Habib sekk a ngi nii bi ma doon wax léegi R plus 2 la bàyyi mu nga ca armeel ya maa ko tëral ci suuf kon lu fi nit di xëcc nga xool ki yàlla bind mu gën ci mbindeef tey mu nga ca biir suuf bu màggalu Touba jotee Touba fees dell yaakaaruñ ku dut sëñ ñu ngay rang utali bàmmeelam ba xabroom ba anam mu ngi ca biir xabarom ba bu gàmmoo jotee ñépp mabbu utali Tiwaawan ñee nga rang jubale xabru sëñ Babacar Si mu nga ca biir ñee nga rang jubale xabru Seydi Hadji Malick mu nga ca biir ñiñ baax la ñépp ñu ngi ci biir suuf waaw ñun ñi fi des lu ñu war te yaakaar leen luñ def lu bëggante soppante dimbalante jéem a roy ci ñoom nax nañ suñ bopp te nit du nax boppam kon dal ci gàttal dugal nañ yonent bi salaay sallam ci bàmmeel ba ci ñuy wàccee suuf sax daf ko bàttalee woon ne diw ak diw nañu wàccee suuf si ndànk ci sama kow bi ñu wàccee suuf si mu ne buñ fa noppee diw na fa des wacc ndox ci kaw bàmmeel bi ndax feek mu ngi tooy yàlla yërëm ma te moom ñëpp xam nañ ne yàlla yërëm na ko bu yàgg ndax li ko yàlla wax ci alxuraan waxu ko kenn waaye ñun lay jàngal ñun lay jàngal pour nu ñuy defal suñuy néew ndax buñ ko ko defalul duñ ko mën a defal kenn fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ñu denc ko tey lay fañ ko denc moo gën a rafet tey ci kaw suuf moo gën a tedd ci kaw suuf waaye dara mu nga ca biir suuf rek te ñun ñépp suufa ñuy xaar minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla na ci laa leen bind de ci suuf bi ngeen di bañ te damay wax ne léegi rek mu baal maax naa jëm sax ci astu su ma noon loxo suuf rek ñëw sotti ko astu léegi coow am yow yaa ngi may taxal lii lan la xanaa da nga dof te bés dana ñëw ñu sañseel la ba nga jekk dugal la ci biir suuf dañ lay sañseel yére yi ngay sol kenn mësu koo sol xanaa dafa di yére yu ordinaire rek waaye kenn mësu ko sol xotti sañse bu baax la parfumé la ba nga baax yàlla moo baax mënoon na ne ne leen ko mëlëb rek suul waaye xoolal nit ñuy defal néew ku war a wuy ji boromam nga sang ko ba mu set parfumé ko cuuraay ko defal ko yëpp te mu wóor la ne da ngay wàqi suuf dugal ci biir walla xadd karam naa bani aadama tax sànq dafa am ku may waxal téléphone am yu ma koy am di ko yónni Louga pour ñu yeggali liggéey booba ca làmp ya ma ne ko boo ji bési tey bés ni tey lañ fa demoon ba léegi pareegul mooy comme yi ñu def ci zawiya Seydi Hadji Malick suñ paree lu ko zawiya sëñ Babacar Si lañ jëm man lu baax laa xam boo gisee biñ defaree raw du Seydi Hadji dem demuñ defaree bu sëñ Babacar parce que awma fa accès boobu mujj gi nag laa laaj fu may jaar bañ wax ma ko accès bi amoon naa ko fa mais sëñ Abdou Alamine la woon ba mu demee ba tey xaw ma fu may jaar moo indi tardement bi damay bañ nit ñi gis bu Seydi Hadji bi gisuñ bu sëñ Babacar dem Louga gis noonu ñëw masjidu rasul gis ko dem kër Alaaji Abdu gis ko ñu ne defar na yooyu yëpp bàyyi bu sëñ Babacar man damaa dof bay tëb Seydi Aboubacar si nga xam ne Alaaji Abdu cër bu mu mën a am ci yàlla gëmut ku dul sëñ Babacar Alaaji Abdu Aziz cër bu mu mën a am ci kaw suuf sëñ Babacar la gën a gëm ci baayam Seydi Hadji Malick ndax bëgg sëñ Babacar si kon may wax ak moom ne ko na ngeen def très attention di leen yeb ma ne ko rawdu boobu ngeen war a defar léegi nii kafa fa tëdd nitu yàlla piir la parce que nit ñi foog nga naab naab leen mën na yomb ci ñoom noonu rek ñu foog ne luñ banaliser la loolu ma ne ko du noonu de na ngeen def très attention nitu yàlla piir moo fa nekk ma ne leen kooku ñu fa deñ ci ngeen di defar xabroom xam nga mooy kan ñu ne ma déedéet ma leen mooy Cerno Muntaga daa Cheikh ma ne leen moom lañ suuloon fii ci Betuwaar 28 ans sulli ko yóbbu ko Louga 28 ans après sulli ko yóbbu ko Louga biñ koy sulli dafa mel ni tey lañ ko fa deñ moo jur Cerno Basiiru mii te kat catastrophe naroon na am ndax bi bi mu feeñoo njaboot gi ne leen eh, waa Ndakaaru moo tax war nañu def attention de dafa feeñu njaboot gi ne leen jëlee leen ma Ndakaaru yóbbu ma Louga ndax mooy yàlla gi ci Ndakaaru bari na maa ngi ciy teg sama bët te mënuma ci dara rawatina nag dañuy ñëw ba ci armeel yi di ko fi defee wallahi lii la leen wax ñu taxaw pour génnee ko boobu na mun tagaa Ahmad mooy xalifa bi njaboot gi dajee pour ca boobu Cerno Bachir mii mu nga Louga déglu leen li may wax bu baax ci télévision laa koy wax àddina bi yëpp danañ ci jot boobu Cerno Bachir a nga Louga Thierno Mountaga Ahmad ne leen du am kii 28 ans ñu ngi ko fi denc buñ ko sulee luñ fiy fekk ñu ne danañ ko dindi mu woo Abdou juuf ne ko yebalal ay gémi ci armeel ya bu ko kenn laal Abdou Diouf yebal fa contingent gémi dem nañ ba ay ngànnaay génn Thierno Mountaga di mag mu baax Ahmad yal na yàlla dolli yërmandeem ak leeram dépare Dakar lii may wax Thierno Bachirou moo ma ko nettali dem leen ngeen laaj Thierno Bachirou dépare Dakar utali Louga ñëw ne ko Bachirou doo xalifa waaye man yow laay diisool njaboot gi yépp taxaw nañ ne dañuy sulli sa waajur man de ànduma ci waaye yow laay déglu boo nee waaw rek ah, kon xam nga ne am na lu fa ne yow laay déglu de Bachirou boo nee waaw rek ma jox leen ndigal balaa maa yegg Dakar boo dee déet nag ma teg ci sama bakkan kenn du ko dindi Thierno Bachir ne ma ne teg dama yàgg ne ko li nga def dara rafet na waaye man day maag yow dañu am kilifa ndax jaar nga Tiwaawoon ci sëñ Abdou Thierno Bachir moo may nettali kenn nettaliwu Thierno Mountaga ne ko déedéet jaaruma fa dem mu ne ko tee nga cee waxtaan ak sëñ Abdou ba noppi man nag jarul sax nga di ma laa laajaat boo waxtaanee ak sëñ Abdou ba noppi lu mu la wax rek ànd naa ci muy Alaaji Abdou Aziz Dabakh Cerno Muntaga ñëw ci sëñ Abdou ne ko Louga laa jógee ci Bachiru xale yee taxaw pour sulli seen baay yóbbu ko Louga man nag damaa lank bi ma ñëwee nag Bachiru ne ma ndax jiisoo nga ceeg sëñ Abdou ma ne ko déedéet jaaruma Tiwaawan mu ne ko demal mu ne ma nag moo ma tax ma ñëw Abdou yow loo ci xam soo nee waaw ñu def boo nee déet ñu bàyyi mu ne sëñ Abdou ne tënn ba yàgg ne ko taal ba ma ko góor gi waxee ak léegi ëpp na fukki at ñemewuma cee ŋaan <laughs> looloo ma gën a neex ci wax ci alaajab doo mën a denc secret alaajab doo maandu mu ne ko wallahi taal góor gi ba mu ma ko waxee ak léegi mat na fukki at ñemewuma ci ŋaang ndax fitna bii laa ci doon ragal mu ne ko waaye man de bu dee sama xalaat nga may laaj mu ne mu ne ko ànd naa ci bàyyi leen ñu sulli ko ndax nee na mooy yàlla ga ca ndakaar daf koy na Thierno Mountaga foofu la téléphoné ne Abdou Diouf bàyyi leen xale yi ñu sulli ko biñ ñëwee ba ba jot góor gi dafa mel ni tey lañ ko fa dañ xetu parfum bi sax mu ngi xeeñ ci lañ ko jël yóbbu ko Louga góor ga Jóob moo ko jullee sëñ Abdou Aziz Al a ngi taxaw moo joxe ndigal pour góor gi jullee ko ñu denc ko foofu tey ma ne xale yi nag kooku ngeen di jullee mooy waa ji ne ma déet kooku lañ nekk xabrom ma ne leen kooku ngeen nekk xabrom de xabrom ngeen di defar mën ngeen ci baaxee mën ngeen ci yàqoo wan la ne Sénégal lu ne am na fi ngeen baal ma am na jigéen ju ko wat ju ju mel ni moom pourtant duñ ko nettali muy yaayi Seydi Jamil bii ñu rob fii ci Tëngéej fii ci Tëngéej xam nga armeel yi Tëngéej gi daf doon nangu armeel eh, géej gi xam nga daf doon nangu armeel yi moom armeel la mu ngi woon ci géej gi bi mu demee ba bëggu ko nangu ñu laaj Seydi Jamil mu ne toxal leen ko ñépp xaw a jaaxle mu ne maa leen jox ndigal dem leen ngeen doxal jigéen ji biñ gasee ba jot ko xetu parfum baa ngi xëy ci lañ ko jël julleewaat ko indi ko sës ko ci bataa bi noonu boo ñëwee ba ci armeel yi xam nga am na koñ boo xam ne ci bataa bi la ne foofu la jigéen ji nekk léegi yaay Seydi Jamil <laughs> kon yàlla am na ñu baax de jigéen baax na góor baax na yàlla li mu am dence ko ma sàmba dence ko ma demb dence ko kenn xam nga ku nga ko dencal ku ko jublu dence ko kenn kim ko dencal daal mooy ku ko jublu ku ko jublu rek mu accueillir la ak noo mën a mel te bul bañ loo taq taq taq taq taq yàllaa ngi lay xaar yaa ayyuha alladina am yaa yaa ayyuha alladina aman eh, déedéet yaa ayyuha allazina yaa subhanallah waaw la ko jiitu laa soxla xam naa ko ni xul xul la de qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim waaw kay laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yagfiru zunuba jamian lu tax innahu huwa algafuru rahim yàlla ne yonant bi neel sama gaañ yi mooy mbindeefam yi de bu ci kenn taq ci bàkkaar ba yaakaar ne mënatuma koo jéggal man yàlla waxal ma leen ne luñ taq taq taq ñépp bu ñu leen siixloo man yàlla siixluwuma leen ndax maa leen bind waaye lii mooy dëgg aywa boo yeggee moon njaay yëkkati rek ma ma wàccee